Mounirou Ndiéguène euh, superviseur des élections au bureau de vote euh, El mu Moundiaye Thiaw de Taaxi Kaw euh, ñu gis ni depuis ce matin ñu ngi commencé déroulement wu bi est que mën ci ñëwal d'une manière générale ndax tout l'équipement bi ñëw na ak amul incident boo xam ne bi déclaré nañ pour majeur boo xam ne bi en tant que le superviseur ok vote bi dans ci centre de vote El Hadji Moundiaye Thiaw depuis huit heures le vote bi démarré dans l'ensemble des bureaux de vote donc constaté euh, gis nañ ni matériel bi yëpp disponible na euh, président bureau de vote yëpp ñu ngi si seen bureau assesseurs yi ñu ngi ci secrétaires yi ñu ngi si euh, représentant parti yi aussi quelques yi ñu ngi fi waaw. ñaata waaw fii ci école Moundiaye Thiaw y' a 11 bureaux de vote moo fi am. onze bureau de vote moo fi nekk quoi. kon mën nañu wax ni bokk na ci bureau de vote yi nga centre yi nga xam ñoo ëpp ay ay ay bureau. waaw on peut dire que. à part Medina Fall ak Gabriel Ndione. à part Medina Fall ak Gabriel Ndione ñoom ñoo fi ëpp bureau de vote. parce que y' a onze bureaux au niveau de Taxi Kaw waaw. naka nga gisee nekkin bi la sécurité tout bon waaw xam nga fii comme quartier boo xamante ne ñëpp xamante nañ. donc amagul fi incident majeur bu ñu mën a signaler sécurité bi ñu ngi fi commissaire jaar na fi sànq commandant corps urbain bi jaar na fi donc euh, point de vue sécurité daal amuñu problème quoi y a pas d' majeur pour le moment. affluence bi euh, nit ñi ñu ngi ñëw di voter par rapport waaw léegi euh, affluence bi moom à l'heure où je vous ñu ngi ñëw mais vers 9h 10h moom amoon na benn stand bi quoi huit h démarrage bi ni ñu ñëwoon nañ mais 10h 11h xawoon na am ralanti mais à l'heure où je vous parle nit ñi commencé waat nañ di ñëw. am nga yaakaar ne daal ni vote bi démarré dina ko terminer incha allah. incha allah loolu la ñaan yàlla parce que loolu moo ñu fi indi pour que ñu voté ci jàmm mu jeex ci jàmm incha allah. Hmm, booy def message boo xam ne bii dafay concerner mandataires yi concerner suppléants yi concerner képp koo xam ne ki da responsabilité euh, ci parti wala ngay représentant ci biir santé. waaw li may ñaan rek mooy kum ci doon mu dal mu dal parce que lépp dal moo ko moo moo ko yor. moom que que sa mandataire wala euh, suppléant euh, wala délégué ku mu ci mën a rek mu dal quoi parce que xam naa ne daal nii ñu commencé buñ ko téyee fii dina terminer ci jàmm incha allah. Muniru Ndiégène euh, superviseur centre de vote El Hadji Moundiaye Thiaw